ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والقب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ku nekk ci sa tuur ak sa sant bu ngeen gisee taxawaay bii nag tey li ko waral lenn la mooy suñu daara fi nga xamante ni fi lañu ñu dalee baax muy daara oustaz Demba Ndiaye nekk fii ci quartier Daaru Salaam ñoo leen yi woo ci seen bis bi nga xamante ni moom lañu am di ko organiser chaque at gaa gëj na am sax ndax feebar bi fi amoon ren nag ñu jël décision jàpp ko bisu le 6 Euh, octobre bii ñu jëm incha allah ñu ngi ciy woo ñëpp autorités yi bàyyiwuñu kenn association yi nekk ci dëkk bi bàyyiwuñu kenn rawatina association ànd taxawal suñu daara oustaz Demba ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaan di tàllal loxo ñëpp aussi ndimbal lépp luñ ci mën a def ñu jàppale ñu ci incha allah rabbi ba bis bi gën a ñoŋ. salaamaaleykum waa koñ bi maa ngi tudd Ndeye Amy Guèye dëkk Daaru Salaam fi daara ji di daara oustaz Demba Ndiaye chaque année nag dañuy def conférence ren ñi ngi ko jàpp le 6 octobre allah ñu leen ci woo yéen ñëpp di ci woo parents yi dëkkandoo yi am di jàmm yi ñëpp ba ci association yi bàyyiwuñu kenn di leen wax ni tamit euh, chaque année conférence bi dañuy def ay añ te bëgg nañ parents yi ngeen génn dimbali seen doom yi ndax conférence kese lañ am ci daara te chaque année moom lañuy bëgg chaque année bu ñëw dàq moroomam di leen wax ni tamit daara ji am na groupe boo xamante ni élèves yi fi njëkk a jàngee ñi ngi def seen seen kéemtalaay kattan pour daara ji jëm kanam ñooñ tamit bàyyiwul leen lu ñu mën rek nañ ko yokk ndax chaque année day gën a neex incha allah jiital nuyoo bi suñu Oustaz Demba Ndiaye mii toog suñu ginnaaw moom mi waral lii yëpp di leen ziar yéen waa GPS TV tey nag boo gisee suñu teewaay fii ñu ngi ñëw pour suñu programme conférence bi ñu amal fii ci Dar Salaam di ko def le 6 ci daara Oustaz Demba Ndiaye ñu ngi woo ñëpp waa Dar Salaam yëpp bàyyiwuñu kenn ndax conférence bi chaque année ñu ngi koy amal comme ni ko sama mbokk bi waxee ëmm benn at lañ ko deful muy corona bu fi amoon ren nag ñu dekkalaat ko bu koo defaat ci suñu teewaay oustaz bi nga xamante ni suñu mag jaar nañ fi ñun ñu ñëw jaar fi ñu bëgg nag ren conférence bi dàq comme yu fi daan jaar ñu bëgg nag waa Darou Salam yëpp génn maire yeeg ñëpp paa yeeg bàyyiwuñu kenn autorité yeeg yëpp ñu bëgg ren nag conférence bi dàq ñu def conférence bu neex xale yi tari programme bi daal dina neex macha allah ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu daara Demba Ndiaye gaalu xale daara Demba Ndiaye maison des enfants yéete ak yar ndaw ñi banu xam seen wareef xam seen borom jàngal seen diine banu man jaamu buur tey roy def si ñoom ay jikko yu nu naw ngir ñu bañ doon nitu ñu bew te leen ban man fi taxawal jàmm ngir sun réew mi dal auzu billahi min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi ar mbokki Tiwaawan mbokki Daaru Salaam ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp kàddu yi nag li ko waral mooy bis boo xamante ni nii mooy bisu daara ji at bu jot ñu ko daan amal fii ci daara ji muy bisu xale yi waaye bisu parents d'élèves yi waaye bisu koñ bi itam muy benn bis boo xamante moom la xale yi am muy seen bis la jàngoon ci at mi ñu tànn ci lu ndaw ngir feeñal ko pour parents yi ak waa koñ beeg waa dëkk bi ak invité yi yëpp xam ni xale yi kat am na lu doon jàng kon loolu mooy bis bi ñu koy amal nag la 6 muy dimanche ci lañ koy amele fii ci daara ji di ci woo ñëpp nag muy waa Tiwaawan yëpp kilifa yi parents yi ñëpp ñu ngi leen si woo ñu teew si daara ji nag daara ju yàgg la allah la taxawoon daara ji loola booba fekkunu fi nun waaye bi yàlla defee ñu daw ay at ba 1989 si lañ ñëw ci daara ji boobaak léegi ay at la ñu ne nag di génn nañ fi ay kilifa léegi ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi senegal ñi ngi sax bitim réew fii bo Europe fii ba Amérique am na ñoo xamante ci daara ji la jaar te ay kilifa yu léegi ñu bari nag wàcc nañ fi alxuraan waaye ñu bari itam am nañ fi ay diplôme muy daara joo xamante ni nii dañ koy sagoo ndax dañu ñëw ci kaw suuf si ngir jaamu borom bi subhaanahu wa te xam na ni jaamu yàlla te xamoo nuñ koy jaamu mënta nekk mbir bankaa bala def da xam loola nun koy defee te jàng mooy tax nga xam nu nuy jaamoo yàlla moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sàkku xam-xam farata la si jullit bu nekk borom bi subhaanahu wa li njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra bismi rabbika allazi xalaq foofu borom bi di wax yant bi sallallahu alayhi na nga jàng kon jàng farata la pour nga mën a jaamu yàlla da ngay jàng xam ne nii jaamu yàlla loolu nag moom la xale yi def te waajur bu nekk dafa am lu la war ci sa doom mooy nga jur ko fa nga ko war a juré mais nga yar ko na nga ko war a yare nga jàngal ko teg ko siraatal mustaqim kon waajur bu ne nga jël sa doom jàngal ko loolu farata la kon nag ñu ngi ci woo mbooleem waajur yi ak fu ñu mën a nekk nañ fexe ba seen doom yi ñu yóbbu leen ci daara ñu jàngi alxuraan ñu jàngi diine ndax loolu moo tax ñu ñëw ci kaw suuf jaamu yàlla moo tax ñu ñëw ci kaw suuf te bala nga koo def da xam da jàng doog ko mën a def kon daal ñu ngi woo ñëpp di gërëm nag waa koñ bi yëpp parents d'élèves yi parce que conférence bu mënee taxaw ba àgg fi muy àgg kooku ñun am na luñ ci def. mooy jàngal xale yar leen organiser leen mais parents d'élèves bi ñoo jàpp ak ñeneen ñi ñoo jàpp ba bis bi mën a taxaw muy bis jublu muy la 6 incha allah kon nag ñoo ngi ci woo ñëpp kenn ku nekk ci koñ bi ak fudul koñ bi sax nga génn ñëw jàpp si liggéey bi parce que liggéey bi dafay nekk loo xam dafay diire suba 9h lay tàmbali dimanche 9h incha allah tàmbali ah dina am animation dina am tari dina am ay waxtaan loola. dimanche lañ koy def waaye day dem ba une heure deux heures ñu noppaleku julli tisbaar añ daal di naan suñuy sedd ak yu mel noona bu ko defee nag ñu continuer ba kero li nga xamante ni moom mooy timis maanaam heure boobu daanaka lay faral di jeex muy boru timis kon nag parent yi teel a génn bu ko defee xale yi mën a tari tari bu jekk ànd ak dal invité yi te mën a ñëw man fee gis loo xamante ni mooy lañ fi daan gis mooy tari bu rafet ànd ak yar ànd ak organisation bu sell di gërëm nag di sant élèves yi nga xamante ni nii ñoo fi njëkk jaar ñooñu ni ñu ko waxee léegi am nañ ay groupe ñaari groupe whatsapp yoo xamante ni moom lañ organiser euh, taxawal ko ñaari groupe yooyu yëpp nag day dox ci lii defar daara ji ak lii taxaw daara ji ren jii biñ demee vacances daara ji xaw a xat ñoom ñoo jënd ay basang yu doy doy doy doy ñëw ko ci daara ji ba xale yi am fuñ mën a toog mbir mi mën a yaatu kon nag ñoom itam ñi ngi jàpp ci daara ji ak yeneen yoo xamante ni dañ koy def mu jëm ci man mi nga xamante ni maa leen jàngal ñu jëmee ko ci man suukar koor dañ koy faral di indi koor gu jot muy xaalis bu bari ak suukar su bari itam di ko def si man kon nag loolu su jotaay bi amee du ñàkk ma gërëm leen sant leen parce que itam mënoon nañoo jàng ba pare nekk si leneen waaye defuñu ko dañoo xam ni fii mooy seen daara ñu jàng ba pare waaye taxawu seen i rak ak seeni doom sax ñoo fi nekk am na ñoo xamante ni seen i papa fii la ñuy jàngee am na ñoo xam ne seen i yaay fii la ñuy jàngee te ñoo ngi ci daara ji di jàng kon nag ñu ngi leen gërëm ñoom ñëpp di sant bu baax a baax di ñaanal mag ñi nga xamante ni ñoo taxawoon li ñoo taxawaloon lii muy mag ñi nga xam ñoo taxawaloon daara ji ah, ñoom ñu si bari nag dem nañu di leen di ñaanal yàlla fa ñu nekk yàlla yokk seen i maqaama yàlla dugal ci àjjana yu kawe yàlla taxawu leen. loolu am nañ ci yaakaar parce que lu baax ku ca jàpp ba loola taxaw lu baax loole saa yuñ ko defee da nga cee am tuyaaba kon mag ñi taxawloon daara ji saa jàngee alxuraan si daara ji ñoom da leen di fekki fa ñu nekk moo xam ñi ne ci kaw suuf moo xam ña nekk ca barzak tuyaaba ja da leen fa fekk kon ñi ngi ñaanal mag ñoom ñëpp tam ñi fi des itam yàlla guddal seeni fan yàlla taxaw leen yàlla sàmm leen bañ yàgg ak ñoom. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu woote leen le 6 octobre si daara ji doy na waar daara Demba Njaay woote naa wuy leen le 6 octobre si daara ji doy na waar daara yay ma daara

daara daara yaay ma daara daara daara yaay ma daara dara dara ya yóbbu ma daa dama bëgg xam si dara la xam ne dama bëgg si dara la texe ne dara dara ma dara dara dara ya ma dara dara adduna bi na jamono ji jeex na dundu gi wey na yawmal xiyam jege na dara dara yay ma dara ah, ma dara suñ daara ji lañu am na yokku na jëm kanam te genne gone yi ngëm ñoo waatu tere bi xam daara daara yaay yóbbu ma daara daara waaw suñ daara ji lañu am na yokkute jëm kanam te genne gone yi ngëm ñoo watu tere bi xam daara daara ya yóbbu ma daara ah, daara sa wax dina baax yow sa jëf dina baax yow sa yëf dina baax sa ajana kawena dara ya yóbbu ma dara yayóbbu ma dara sa wax dina baax yow sa jëf dina baax sa fay dina baax sa ajana kawena dara yayóbbu ma dara ah, dara waaw sa wax dina baax yaw sa jëf dina baax sa fay dina baax sa ajana kawena ya yóbbu ma ma dara ah sa wax dina baax sa jëf dina baax yow sa fay dina baax sa ajana kawe dara ah dara. suñ daara ji lañu am na yokkute jëm kaanam te génne gone yi ngom ñoo waatu téere bi xam yayo bu ma dara waaw yayo ma dara dara yayo ma dara ustaas a ah, Demba Njaay dara dara ya